njool makka yaa leen gën asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateur Al Maktoum TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm bu baax di sàkku ñaan di leen ndokkeel beneen yoon ci weeru koor wu màgg bi di leen ñaanal yàlla bu baax lépp luñ ci jaamu yàlla rek yal nañ ko yàlla nangul ñëw nañ nag tey di leen indil seen naafila bés bi tey di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor amna ñu 10 raka suñu nafila tay bi 10 raka la raka bu nekk dinañ ci jang fatiha ben yoon ginaaw ga ñu jàng alqari'atu ben yoon ginaaw alqari'a ñu jang suratul ikhlas 5 fois juroomi yoon suñu borom bi subhanahu wa ta'ala nak mi ngi dik jaama mi nga xamne ñoy taxawé bi le nafila képp ku ko taxawé di nga am yoolu ku wor sa giiru dund macha allah lolu amna solo ñu ngi wax mbokku téléspectateur yi bu kenn raté bile naafila na ko ñëpp taxawee ndax am na solo ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm incha allah ci beneen naafila asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jol Makka yaa leen gën